internautes yu Dakar Actu amaat nañ mbégte àndaat ak yéen si seeni émission Actu Débat c'est vrai que euh, ça fait quelque temps dañ ko arrêté woon ngir xoolaat yeneen réglage yo xamante ni dañ koy def alors dellu wat nañ tay comme niñ koy faral di defee sa su ne wàcc si langue politique bi tay tamit euh, ñu wara waxtané Euh, lu xew ci Sénégal waaye tamit situation su région bi lu ci mel ni situation bi nga xamante ni Mali moo ngi koy dundu jamono ji moo tax te ñu dalal koo xamante ni euh, buñ ko waxee ci wàllum politique Sénégal foog ñu tudd turam euh, kooku mooy Babacar Gaye Babacar Gaye nag boo ko waxee sa xel dina dellu ci parti démocratique sénégalais donte sax nekkatu fa waaye bokkoon na si ñi nga xamante ni ñoom ñoo gënoon a jege ki nga xamante ni moom moo nekk maître Abdoulaye Wade ci jamono bi nga xamante Alors ñoo dit Baba nguur gi alors di euh, ministre euh, directeur de cabinet politique euh, bu maître Abdoulaye wad également porte-parole du parti démocratique sénégalais Lata muy génn ci parti bi ñom ñu taxawal benen parti bu bu ñu tuddé alors mu and ci ak maître Amadou Sal, ak Omar Sarr alors pour nous dugg ci débat alors Babacar Gaye nuyu nañ la dalal la Dakar Actu TV

ma bëggoon rek leeral tuuti. balaa mhm. ñuy euh, xuus ci mbir mi. Mhm. benn mooy. Mhm. ñun ñu PDS. d'accord. Euh, ci li ma jàpp mooy ñenn ñi dañ leen dàq ku mel ni Omar Sarr. ñun ñu démissionné ci fonction yi nga xam ne joxoon nañu ko ci secrétariat bu mujj bi. fas ne taxawal parti. d'accord foofu la ñu toll. d'accord parti bi nag amagul tur. te courant bi nga xam ne moom la ñu taxawaloon ci biir parti démocratique sénégalais. Hmm. mu ngi tudd alliance suqali soppi. d'accord ñu ngi waxtaan. Hmm. Euh, ñu ngi tënk kayit yi nga xam ne moom lañu ñu war a wane suñu projet de société. Hmm. ñu ngi waxtaan ci statut ak règlement intérieur yi nga xam ne moo nar nekk sartu parti bi. parce que bëgguñ li nekkoon PDS. ñu euh, indi ko ci euh, kuréel gu bees gi ñu bugg a taxawal. Euh, parti bi jëlagul décision né dàq nañ ñu. comme ñun tam jëlaguñ décision. d'accord euh, ñenn ci ñun ñu baree baree bari né démissionné nañu de manière formelle mais li am solo dal moy askan né japp né heure bi ñu toll suñu mbébét yépp moy fexé taxawal jëmmal kuréel go xamné bu ëllëgee réew mi li nga xamné mo fi yëngutu ci walu politique ci lañ mënu jaaree pour mun cee bok d'accord euh, bu fekkee ay wote la ñu jaar ci bok ci. bu fekkee jël nguur gi la doxal ko ñu jaaru ci euh, euh, jël nguur gi. Mhm. ndax jàpp nañ ne daal parti démocratique sénégalais ni muy doxee fii ñu toll dafa mel ni dafa nekk euh, benn ëmb bu ñu waajal kuy tukki pour moom rek la. loolu nag mënuñ ko wéyaale loolu moo tax ñu fas yéene ñun ak ñu bari ak ñu ngi tudd. Mhm. pour taxawal beneen parti politique.

Euh, kenn du wax ne euh, lii mooy xew. Mhm. ñun dañuy wax Saalum naan politique du jigéen. Mhm. bay ëmb waaye day xëy jur aussi. Mhm. situation Mali bi euh, jaaxaloon na doomu aadama yi rawatina ñun ñi dëkkee ci waaso bi nga xam ne mooy Afrique de l'Ouest ndax Mali lu fa xew rek dafay impacter. Manam Sénégal fay impacté Guinée fay impacté Mauritanie ak réew yi nga xamné ne ñun ñoo ñu wër loolu motax bi euh, contestation yi bari manifestation yi bari euh, man jàppoon naa ne euh, mun na am solution xalaatoon na lool. solution. waaw ndax hmm. dama né hmm. euh maturité peuple africain yi tolloon na foo xam dana tax buñu un conflits politiques régler hmm. par des solutions politiques. comme lan mais des solutions politiques apaisées non. xam nga boko hmm. euh CEDEAO def na fa ay djégo hmm. ba ki nga président bi amna nanguloon sax dama nangul na. pour mu def démocratie ay démocrate ñoo koy def. Mhm. kenn ku si nekk mën nga am position mooy sa première position. Mhm. waaye position yi war na mun évoluer en fonction circonstances yi te gis naa ne. Mhm. Euh, euh, imam Dicko ak ñi mu parce que ñoom noonu laa ko mën a tuddee parce que moom mooy euh, figure de proue. contestation bi nga xam ne moo am Mali. ba tey mu jur coup d'état exigence bi ñu amoon mooy démission Ibeka, manam démission président de la république. Mhm. pour man lolu mhm. war ko encourager. ah bon dédé si naka lan mo tax nga wax lolu système démocratique. Mhm. dañ ko tabax tabax bu tax par échéance yo xam peuple bi moom moo koy décider. ci lay ñuy manam traité sooru ñi nga xam ñom lañu fal de manière démocratique. échéance yooyu bu jotagul mun nga contester pour man. Mhm. mun nga def ay suggestions pour ñu modifier doxalin. Mhm. mun nga yëngal ndax loolu dafa bok ci démocratie. Mhm. su parce que amul rek ñu fal rek nga ne yow rek lañu fal kon da ngay def la neex déedéet. légui démocratie bi dafa and ak participation des citoyens. ci nu ñuy doxalee démocratie mais démocratie laajul ñu fal nit. échéance bi jotul. ñu ne kooku na démissionné. loolu mm. bu ñu ko encouragé. Mm. instabilité permanente mooy am ci réew yi. bu fekkee ne que France gis nga. Mm-hmm. walla Allemagne. Mm. Euh, ñu ne président bi ñu fal na démissionné parce que échéance jotagul. crise politique mun na am. Mm-hmm. yow nga def sa jàngat nga ne situation bi lim jur man am naa responsabilité boo xam ne personnelle la. Mm-hmm. nga tirer ci une conséquence de démission ce qui est très rare aux États-Unis tu ne verras pas les gens contester président mais On a démissionner avant échéance pourquoi en Afrique nous faisons le président voilà échéance bi jot ñu démissionner imagine en 2011 2012. quand on nga jàpp ne beaucoup de ci ci démocratie. de démocratie. Mhm. Euh, électorale bi nga en ñun moom Afrique. ak nous, yëpp ñun ñoo tànn ne bi système démocratique mooy. Mhm. day respirer. Mhm. parce que bu ñu ko bàyyi mu continuer day mujj nekk loo xam ne du sotti. d'accord pour mu respirer dañu war di ubbi cin bi maanaam couvercle bi dañ ko war a yëkkati par ay échéances mooy nit ñi ne kii ni muy doxal baaxul togg gaa ngi waaj a xam donc nañ def wate il peut arriver que légitimité nga perdre ko. Hmm. Euh, ci démocratie yi nga xam ne seen des démocraties aussi parlementaires. Hmm. même système français démettre le gouvernement dissoudre l'Assemblée nationale organiser l'élection. lolo pour que contestation une en charge majorité ne change changer circonstances mais euh, démission au président qui logiquement mort clé de vous des institutions je peux comprendre la démission d'un gouvernement mm-hmm. Nous comprenons comprendre dissoudre l'Assemblée nationale pour qu'une nouvelle majorité s'installe. Nous mhm. organiser ay élections. Mhm. mais qui nga xam clé de voûte des institutions le président de la république. Nous mhm. ne démettre les ko mu ngi mel fonctionne et Angleterre ñuy fonctionner nga ne ren bi est ce que ça ne reflète pas l'état de mécontentement du peuple envers les présidents africains souvent nous gis que nous bu ñu démarrer nous ba des euh, contestation bi frustration bi dem ba jur li nga loolu. Hmm. constat boo xam ne am na ko waxoon foog naa benn président français. Hmm. ne l' Afrique n' est pas mûre pour la démocratie. maanaam Afrique démocratie euh, mateeguñu ko. Hmm. loolu culture démocratie il faut wax naa ko ci njëlbeen ay démocrate ñoo koy def maanaam nga dem élection ñu gañe la nga nangu ne gañe nañ la. nga bàyyi kiy dogal mu doxal. du tere nga koy critiquer. Mhm. te naan man de su ma jotee nguur gi. lii ngay def dootuma ko defee nii nii laa koy defee. Mhm. jot nguur googu nag war na xam échéance dañ koy fixé ci constitution te ñu bañ di ko yàq di ko jal salfaañee. Mhm. comme ni ñu def laal mandat yi naan dama war defaat mandat wala mandat bi ni ñu ko waxee nii leerul. war naa mën a am troisième mandat. yooyu moom su amee rek sa veut que culture démocratie dafa manqué ci jiit yi. waaye population yi nga xam ne ñoom la ñuy faral di mobiliser. pour nous contester le régime pour nous contester l'ordre institutionnel nous avons souvent y a de la manipulation lu ci hmm. toujours c'est certain la preuve euh, c'est le cas au Mali aussi voilà au Mali c'est évident nous avons une culture de contestation Le hmm. Mali et peuple malien depuis taw Moussa Traoré hmm. dañu nous bu ñuy génn contester ñom bokkuñ ak yeneen peuple yi comme Sénégal maanaam ñom dañ koy def en masse en général dafay am effet te comme Mali dañu tàmm coup d'état hmm. euh, ñu bari seen xel njortoon na ne am na fa contestation bi di toll militaires yi nekkoon si caserne yi danañ génnaat. Hmm. te loolu moo am nii. loolu nag day day dafa pour man dafa war a jeex Afrique maanaam. Hmm. man daal en tant que démocrate. gisuma ay soldats ñu jël ay nguur. di ko doxal mënoon naa comprendre ñu ne le Mali situation bi dem na ba nga xam ne y a un armée bi écoutez ñun comme nous sommes la république nous incarner la sauvegarde de la nation. Mhm. dañu bëgg arrêter lii par un compromis. par exemple. Mhm. nous euh, mhm. dañuy. dañuy par exemple wax qui était muy président bi. mbir mi kat toll na foo bañ situation ni changé ko naka. Mm-hmm. compromis du ñak mais est-ce que du doon médecin après la mort bàyyi bu ay nit dé yenn say comme ni koy faral di gisé ci Afrique ñu soog a ki bi ñom ñu téy pouvoir bi. mais euh, lolu modul mm-hmm. dul yoon maanaam ay nit ñu dé mm-hmm. ci euh, euh, politique. lolu exception la wara nek pour man nit ñi war nañ man di contester seen i wax seen i maanaam mbébét. di ñaxtu. té duñu ñu

dañuy faral di yàkkamti euh, kooku daanu. Mhm. pour ñoom ñu jël nguur gi doxal neneen boo ko seetloo ñii faral di contester pouvoir yi nekk en place buñ jëlee pouvoir bi Afrique loo fi gis dañ daan wax rek ñoom ñëpp a yem xam nga da faral ni ñu dégg wax loolu. Mhm. situation Mali situation économique boo xam ne c'est dramatique. Mhm. et une crise économique et sociale. nga war ci yokk nag insécurité bi nga xam ne mu ngi am dans le nord. ak les conflits entre les communautés yi am fofu ñuy réndé lolu bu nekkee ben genre cocktail dafa explosif nguur gi nga xamné daanu na tay mhm. ñi koy remplacer est-ce que dinañu régler ñetti questions yi est-ce que dinañu régler manam les sécurités au nord pourtant ce sont les mêmes soldats ñom ñooy défendre le Mali mhm. et mënuñ tay jusqu'à présent libérer le nord du Mali kon jàpp naa ces mêmes soldats ne peuvent pas eux-mêmes régler cette question-là est-ce que day régler la crise économique et sociale du Mali avec le contexte de la pandémie Covid 19 Covid 19. Mm. parce que nous avons des ressources ak euh, rapidement contenter population troisièmement est-ce que c'est possible. Mm-hmm. conflit entre les ethnies. est-ce que nous effacer comme rek décret le eh, eh, Ibeka ak ñi doon jité buñ démé mhm. soldats yi fi nek nañ dañuy organiser élection. la transition dans le mhm. pourquoi ne respecte pas la constitution. xaar bu mandat Ibeka dit quand le président de la république démissionne. Mhm. ou est empêché. c'est le président de l'assemblée nationale qui prend les pouvoirs. malheureusement pour éviter une transition. politique civile. nous dem nekkoon na démission l'Assemblée eh, nationale mu mel ni président l'Assemblée nationale moto nous avons créé une situation euh, euh, d'exception hein, hein, au Mali pour mon mhm. Et quand je vois que vous ne que le président démissionne, on doit organiser les élections entre 21 et 40 jours jours Mali. Nous avons un délai raisonnable. ça veut dire que nous avons dépassé les délais constitutionnels pour organiser les élections. donc nous avons lu l'air, euh, en quelque sorte. xam avons parce que nous avons ni les organiser conditions au Mali. Mhm. insécurité lutte entre les communautés. Euh, plus la pandémie euh, Covid-19 mhm. mënuñ respectait entre 21 et 40 jours donc vous y ni mhm. danañ fi mais est-ce que les militaires deviennent des def pour gérer le euh, pouvoir politique aussi c'est une question non il faut dire non la réponse est non l'armée n'est pas faite pour gérer un pouvoir politique. Ah oui Quelles que soient les circonstances Quelles que soient les circonstances Quelles que soient les situations Quelles que soient les situations, une armée n'a pas vocation à gérer les pouvoirs politiques. Mais mon stabilité Dans politique les pays, pays où l'armée gère le pouvoir politique, c'est les pays qui sont en guerre contre une autre nation. En général, il arrive, comme hmm. c'était le cas, hmm. le général Pétain qui dirigeait la France. Si Wolof, oui. Waouh, hmm. France, le général Pétain, il dirigeait France. Et moi, mon dirigeait France, France, France, guerre contre l'Allemagne. Nous raafal lépp loo xam ne doon pouvoir politique. Hmm. de Gaulle militaire dafa jóge France dem Angleterre woté ne nañ xeex bi militaire, paree militaires yi ñoo le pouvoir bi. Hmm. loolu mën ko comprendre moment biñu nek en guerre militaire, ñoy décider. Hmm. parce que ñom loolu mo seen ciir mais tel n'est pas le cas au Mali. déedéet nekkuñu en guerre. wala buñ ay guerre avec le nord ils n'ont qu'à aller se battre avec les djihadistes du nord ba gagné militaire. place du ci fauteuil yu président de la république lolu recul démocratique la lolu dafa melni ni. Mhm. Afrique euh ñu xol mhm. yeneen réew yi naka lañuy doxale ensuite. Mhm. pouvoir bo xamné dafa joggé ci contestation insurrection. kaw euh, ba ba leen installé wu. loo ci gis fi ci Afrique gisuma ci benn cas bu doxagum. Libye. Tunisie lo ci gis dafay déstabiliser réew mi ba nga xam ne. waxtaanoon ba trouver compromis xam nga luy compromis. mooy nga téye dara lu dëgër mhm. ma tey dara lu dëgër kenn kenn ku nekk ci ñun ne mhm. man bàyyi naa lii ma téye woon jàppal naa lii yow tam bàyyi lii nga téye woon jàppal lii d'accord ñu retrouver wu dans un compromis def un rassemblement pour ensemble mhm. le peuple malien ensemble am seen solution euh, euh, endogène boo xam ne ci seen biir réew lañ génnee ne nañu doxalee suñu réew nii sans wàññi infusion de sang mais lu tax nit ñi mënuñu waxtaan ba jubóo kon yow euh, bu ma la déggee ngay wax Babacar bokkoo si ñuy wax ne li xew Mali c'est un signal fort pour les autres pays africains surtout la sous-région Afrique de l'Ouest bokkul ndax kaa du benn hein? bu fekkoon ne tey hein? eh, wax naa la léegi 2011 2012 contestation yi amoon fii moo gën a tar yi amoon Mali mhm. parce que yi nekkoon au moins yaa ngi doon gis ñu naan diw dee na rey nañ diw nangam nangam mhm. est-ce que pour autant militaire yi dañu génn ne Abdoulaye da ngay démissionner dañu dissoudre assemblée nationale euh, nous dañuy gérer pays mhm. on a pu dem élection même si nous avons dit nañu Abdoulaye élection. Mhm. quand même dem nañu élection loolu avons tax président Macky Sall nekk aux affaires. y pays yi nga qui tudd dans la sous-région. Mhm. en Guinée. le problème que nous avons fait poser fay posé Alpha Condé président de la République fexe na ba modifier constitution ne de faire un troisième mandat. loolu dana créer problème Guinée. Euh, euh, Ouattara. Côte d'Ivoire kaam bokkul ba tey ak Kaou Guinée. Mom mhm. def na constitution ñu ci interprétation naan war na am wala warul am. Mhm. mais ñi jàppoon nañ ne warul nekkaat beneen troisième candidat. Mhm. candidature mu def ko. dina jur problème commencé né déjà. bul fàtte ne foofu dafa gëna grave ndax déjà amna conflit ak Guillaume Soro. am na conflit ak euh, Gbagbo. té Bédié aujourd'hui nekkatul ak mom dans une coalition. kon japp na né Côte d'Ivoire tam benn bombe la bo xamné ce qui fait attention on a explosé à cause de des politiciens yi nga mhm. en général dañu nekk en déphasage avec les volonté populaire. Mhm. donc mhm. euh, les cas Mauritanie on ko gisal sa élection démocratique. pour les uns ce n'était pas euh, clair. Euh, mais quand même il y a les institutions qui sont là-bas président a fa nekkoon bu il bi encouragé pour mouiller tey mom la met à vous dina mhm. waxu ah, mandat différence entre Guinée. Mhm. Côte d'Ivoire ak Sénégal lan la. Mhm. xam problème 3e mandat. c'est pas une affaire de troisième mandat. contestation sociale merci voilà. 3 troisième mandat dans trois ans. trois à 4 ans. mais on se prépare davantage d'abord 2024 mais lolu xam nga

Euh, responsable APR yi. Mhm. la ñu waxoon porte parole nit ñi dégg nañu ko. Mhm. amna sax ci ñeneen ñoo xam ci biir nguur gi lañu bok bokk. Mhm. même ku xelal président ci walu droit. la mu wax ci troisième mandat nit ñi dégg nañ ko. kon kay war nañu mëna a xaar. ba cëppaandaw ba set bu jotté est-ce que ki da fay dekk wala du nekk. imagine ñu koy wax di ko wax wax depuis 2024 ça change quoi est-ce que day tax président jógee fi. en tout cas man je ne souhaite pas que lu xew Mali xew Sénégal en termes de coup d'état parce que loolu. Mmh. Euh, dafay mel ni ñun 60 euh, ans il nga a quand mmh. dund nañu ko. Mmh. bu de amee indépendance de léegi. Euh, day mel ni mérité wuñu sax ñun. di prétention de dañu jiite réew mi ndax. peuple sénégalais moom Mali de bokkoon benn fédération. de pays. bokk république. Nous, nous dem une armée comme nous avons une armée Une armée la tout à fait suñ militaires yi nekk ci cadre militaire. Mhm. militaire malien yi ñoom di dugg ci gestion politique bay def ay coup d'état coup d'état coup d'état coup d'état te amagut fii. Moussa Traoré euh, ATT euh, encore Sarogo, tey ñu naan xaw ma. Jaw ak keneen mhm. dina am ak keneen. ce ah. serait dommage pour le peuple malien mais bien sûr. Mhm. parce que dañ Japonais, ne. Euh, contestation war na mën a jur. ki fi nekk jóge fi mais lan moo ko fi war a militaire ñoo ko fi d'accord. Ce euh, aussi démocratie. wax nañ euh, troisième mandat bi ñu puisque nañ ci. parenthèse mhm. est-ce que kon yow euh, nga raisonné tout à l'heure Babacar si wax ne président génn wax ñu lu ku nekk xam sa mais lu président naan day génn di wax président wax ci mandat bu Sénégalais pour mhm. l'instant lan la

Oui, ni ni, dama jàpp pourquoi comme nous nga ko demandé question président war a dit di waxaat naan oui troisième mandat oui non mënatuma def troisième mandat loo ne peut pas parler. est-ce qu'il est obligé pour moi à l'heure actuelle mm-hmm. euh, à un an même pas les demi de son mandat bi mm-hmm. muy exercer mu ne way man euh, dootuma def troisième mandat est-ce que c'est une est-ce que c'est pas une redondance c'est évident parce que ne pas conseil juridique am wax nako mhm. répété nako ko mhm. porte parole am wax nako répété nako mhm. Mimi Touré que j'ai suivi. bok ci ñom wax ko répété ko. chaque fois bu leen tendre micro wax leen ne est ce que président Macky Sall dafa 3e mandat ñu ne non. ken mënutu def fi 3e mandat constitution bi nii la ko tabaxee pour ken ku nekk. fu mu nekk nii ñëpp moom la ñuy sax def débat alors que mënañ concentrer suñu salive bi. ci lo xamné moy amal jëriñ askan wi. réew mi am na préoccupation santé éducation euh, économie emploi mhm. euh, euh, agriculture euh, insécurité bi nga xam ne commencé dans la sous-région c'est des débats nationaux yu mel noonu a am On politique yi dañu la hauteur def euh, am ay débats c'est des débats qui produisent mhm. de la richesse du point de vue des idées mhm. Et amal njëriñ askan bi. d'accord Lolu bu amul dañ fi nek di péraler ba 2024 ci est-ce que war naa dem warul dem am mandat amul mandat est-ce que la démocratie nous lay est-ce que France. Mm-hmm. a fait fa débat ñu président bi euh, euh, non peut-être que nous sommes la France parce que nañ ci suñu rek xam nga Nous wax ba nit ki ñu am qui keneen tamit qu'ils euh, tamit mu gérer wax lu est-ce que tamit. xam nga ki qui, waaw mm-hmm. troisième mandat ci dépendre. mais mënuma amaat troisième mandat yow nga jàpp loolu. Hmm. texte yi wan la ne mën nga am troisième mandat. est-ce que c'est pas le cas aussi avec makki euh, Macky ci boppam. Hmm. du moom rek moom ak ñi nga xam ne ñoo ko xelaloon pour ñu defar constitution bu bees bi 2016. Hmm. muy Ismaïla Madior Fall da ngay dem bu ngeen def ngeen déggaat vidéo ñu xool ko lu mu wax ci li Macky. mandat nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Majorement, beaucoup de oui mais encore une deuxième fois nul ne peut faire plus de troisième euh, deux mandats euh, euh, consécutifs nul ne peut faire troisième un troisième mandat consécutif deux mandats consécutifs. est-ce que son avis compte ça? Ah, ça non dama non du conseiller juridique du di du ci hmm. du madame la présidente du conseil économique social et environnemental hmm. madame Aminata Touré amul kenn ci qui ne li principe bi démarré man fa ah, ñaari mandat yi lay amul hein, situation au Mali parce que Mali suñuy une lañ n'est nañ instabilité politique bu doy CEDEAO a échoué si euh, tentative de médiation bi ñu daan def yow euh, non nga ko gissé pas du tout xam nga échoué moy hmm. lo xam da nga obligation de résultat. Ah. xam nga crise politique euh, amul ben institution bu nan man de résultat bi rek lay am. Hmm. man qu'elle su fekkee réussiruma hmm. à ce que crise bi Mali jeex ça veut dire que j'ai échoué il est possible nga def tentation. nga am ben objectif nga ne man dama bëgg def li def li def li def li mhm. nga def li def li def li beneen bi ci mujj def loko est-ce que mën na wax da nga def échec lan la CEDEAO def Mali ak lan la fa am comme résultat CEDEAO dem na Mali pour waxtaan ak force yi. Mhm. force yi déglu nañ ko. Mhm. Euh, ña fa nekk mooy IBK donc le président de la République ak le gouvernement malien. de l'autre côté muy am Manam Diko ak ñi nga xam ne c'est le moment du M5 ñooñu. Ce que nous lu ci bari. qui mhm. na lu ci IBK def. Ah mooy def ay ah mooy conseil constitutionnel da am na wala amul. Hmm. gouvernement bi ministre, ministre premier ministre nommé bu bees gouvernement d'union nationale def na ko def ko mouvement M5 le ci bokk mouvement M5 nous ñu demandé la démission. Mhm. de IBK donc du président de la République. Mhm. IBK démissionné où? est-ce que CEDEAO day wax Iba Ka da ngay démissionner. kon CEDEAO bi ba mu mais est-ce que duñ ko wax deug tamit. mais wax deug moy li ma la expliqué. est-ce que nekkuñ di ko raay. lañ wax ak mom xamoko manam hmm. lañ wax ak moom ba mu nangu. Hmm. ne damay dissoudre conseil constitutionnel dina def gouvernement d'union nationale. Hmm. dinaa def un un dialogue national pour ñu discuter des questions économiques et sociales. au Mali. mais loolu CEDEAO ñoo ko réussir ba am ko ci Ibeka ak gouvernement am. li amul ci Ibeka Ka la rek. moy mu démissionner. C'était une qui là. oui parce que jël bayonet tek ko ci ne ko waxal ne da ngay des assemblée waxal ne gouvernement bi ba ko waxuma sax mhm. camp militaire. def lako déclaration est-ce que conseil constitutionnel d'ailleurs euh, constaté démission IBK lolu aussi dafa bok ci règle yi nga fonctionnement institutionnel. Mhm. xam je ne fais pas du juridisme. mais mhm. dama bëgg rek. ñu jaar tak démission gu IBK ñi ko doon réclamer la wax. Mhm. amuñu ko. armée bi moo jël fetal teg ci bopam ne ko démissionnel. et démission bobu cadre juridique yang koy wax légui. est-ce que c'est accepté et reconnu. ñaar dal la ko ci wax. Ben conseil constitutionnel léegi gu ma ko constater té constitution Mali dafa de la démission du président de la République wala son empêchement est constaté par le conseil constitutionnel. n'est-ce pas. deuxièmement. au bi ngay wax ni ñoom reconnaître déjà li xew Mali. Mhm. ils condamnent le coup d'état te dañ à ce que nous remettions l'ordre constitutionnel en place Nations Unies ci dynamique la France mu ngi encouragé CEDEAO donc les CEDEAO ñoo bokk vision. France est-ce que war nañ ko bien sûr. Mhm. ah comment 5000 militaires maliens qui sécurisent le Mali. Mhm. et l'Afrique de l'Ouest vous ne duñ leen déglu. lu tax duñ leen déglu lu tax bu ñu jaaxle rek daw France de ba pare bëgg ñu France oui mhm. il faut que sénégalais aussi surtout ñuy def politique. yu mhm. bees mhm. euh, euh, réfléchir un peu sur ce qu'on appelle la géopolitique. dafa am loo xam ne dafa dépasser pouvoir ben état. France sax dafa nekk ci géopolitique. France bu leen et États-Unis ils muy commencé attaquer fi Irak. situation boobu nous mu quelle était la situation en France mais Chirac di wax beaucoup. du dem. pourquoi Angleterre ñoom en ak ñoom dafa am ay intérêts yoo xam c'est géostratégique. kon pays dañ il coopérer. Euh, c'est-à-dire amul benn pays bu mën a vivre en si mhm. yow sa bopp yow rek. loolu mhm. amul fenn. tëju te boo jaaxlee benn sécurité ngay obligé euh, wut ndimbal. Mhm. soo jaaxlee économiquement financièrement nga wut ndimbal. soo jaaxlee sax ci ay yeneen mbir nga wut ndimbal. donc il faut que ñu bàyyi xel ñi nga xam ne boo jaaxlee ci ñoom ngay dem. wolof dafa wax ne. Euh, bu tan gore bu ñuy góobali mbaam. moo ciy gën a rëy aw say. lu parce que tan budé kenn rek mo koy jëriñu mhm. non bam budé mhm. tan rek mo koy jëriñu tout à fait mbaam bu dañ koy sanni tan yi koy bi moy wax fu donc tan bam tan mhm. warna fexé bumbam bu di dund. mu koy wutal ñax mo xamné dina tax mu gëna douf gëna gën a rëy. bu dee ko njëriñ. dañ war di sam relation yi entre les états. de telle sorte que bis dina jot nga am soxla réew taxawu loolu moy coopération diplomatique entre les états donc mhm. Nations Unies mhm. CEDEAO mhm. France et Union européenne où na est, comme euh, Allemagne commence à dougou Mali ils vont rentrer dans la danse Ça les dire encourager ay coup d'état ci réew yi nga ne ñu ngi dans une démocratie naissante. ñu leen encourager une euh, culture démocratique. On dimbali peuple contester de manière régulière sans que mu ait violence ñuy wax euh, pousser les chefs d'État à respecter le peuple est à respecter l'ordre constitutionnel. Tu as, vu la déclaration des États-Unis, tu as vu la déclaration mm-hmm. de l'Union européenne concernant la Guinée et la Côte d'Ivoire. Mm-hmm. loolu lu des menaces en réalité pour les chefs d'État. Si chef ne état pas su ngeen nous on est là en face de vous. Nous avons des moyens de coercition maanaam a des moyens de leen mën a nootee. Mm-hmm. ba liñ bëgg ngeen ngir peuple. fii tamit. CEDEAO ak Nations Unies pas ce lu nous décidé. mais seen discours yi ma déclaration li xewon Mali ak Sanogo. Mhm. lu raw lolou moy amat manam danañu woo junte bi ne da ngeen di wacc man leer na mané sen mhm. sen prochain sen décision bi ñëwaat moy yor ngeen nguur gi du ngeen ko fi yoré il faut qu'on se débrouille pour installer quelqu'un de transition bu fekkee dañ nar a pousser IBK mu dem xam naa ne du ñak mhm. comme schéma bi defon coup d'état Sanogo bi ñu né président assemblée nationale bi nga xamné mom na dañ ko daaneel. Ne euh, ne par exemple dama ko organisé l'élection mhm. ñu ne dans temps de délai. ñu avons nañu un dialogue national autour des questions yi taxoon contestation bi am il faut que nit ñi toog wax laa wax. toog wax ba trouver solution juboo ci des compromis pour avancer. si situation est ñu poursuivre posture CEDEAO discours de t en guériste communiquer. de bi def. communiqué mettre en garde jàpp nga c'est la bonne. c'est mais bien sûr c'est que j'ai l'impression que. Hmm.

peuple malien bi ñom am nañ victoire hein parce que ñom niñ ñu bëggoon contester le régime ba daaneel ko. Mhm. n'est-ce pas. Mhm. mais militaire yi ñom man je pense que ñom dañoo laji ndax lolu seen cër cëru militaire du jël ay pouvoir par les armes. d'accord mbokk qui sest nañ protéger le peuple malien ci contre les djihadistes. Mhm. nañu fexé ba les communautés dogon et peul yi nekk di dotu ñu reyante ak bambara. mo gën ñoom ñuy ñëw nan dañu bëgg nek ay ay roi ak ay buur. D'accord. Je suis en une émission Actu Débat tey nag ñoo Babacar Gaye Babacar Gaye euh, parti démocratique sénégalais Vous <laughs> euh. tout à l'heure uh-huh. Il y a précision voilà amut ben notification Il parti mais comme mouvement bu vous man dama bëgg xam euh, rapport PDS. mais ñun PDS euh, en tout cas man Babacar Gaye sama bopp mun naa wax ak sama bopp te xam naa ne loolu mun na engagé Omar Sarr mun na engagé Maître Sall mun na engagé ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekkoon dans l'alliance Suxali Soppi. Mm-hmm. PDS lu ñu fa lañ lu ñu fa téye maanaam li nga xam ne moo ñu fa moo ñu fa boole. Mm-hmm. lenn rek la. lan mooy lan président Abdoulaye Wade. donc kese. kon lijjantiwu leen leneen li nekk si ginnaaw. déedéet ah parce que leneen nekkul. quel que soit lien bi ngeen amoon ak si ñi fa nekkoon. non xam nga lu tax. Hmm. ñun dañu jàpp ne. Hmm. comme moom daj dëpp la. wala fu mu daj dëpp boo yeggee boo yegg ca moom laal ko da nga war a arrière taxaw. mais cëppaandal. waaye voilà <laughs> mu njaxtal. Ablaye dafa nekk loolu icône la. Ablaye dafa président Ablaye dafa am lu mu ñu tàggat. mooy ci liberté bu ñu amee xalaat ñu wax ko. Hmm. daf ñu jéem tàggat ci accepter la contradiction nit contrairement lu ñuy xalaat Ablaye musul jël décision sans mu def concertation large fenn rek la ko gis mu def ko moy secrétaire euh, secrétariat bu mujj bi mu def ni mais par exemple la jamono bu waree décider day waxtaan ak ñi mu war a mi pour ñu xol en réalité qu'est-ce qu'il faut euh liñu fa té moy hmm. lañu fa liggéey

jox vision Afrique waxuma Sénégal vision ba léegi ku nekk jàpp nga ne war nga mën a yëkkati sa réew ba ma jël niveau international loolu dañ ci am wàll héritage boobu dañ koy téye bu keneen décidé téye ko tant mieux suñu demee ba gis ñi nga xam ne dañ ko bëgg téye ñu am fasteef farlu ñun ak ñoom ñu ànd téye boobu patrimoine waaye amatul nag benn nit. Mhm. nekk messie nekk comme yonent wala nekk comme yàlla. Mhm. di def di dindi loolu c'est terminé mooy benn. Mhm. ñaareel ba. amatuñu ñun euh, maanaam foogatuñu ne réew mi euh, man la man la moo ko war a yóbbu ñun la ñun la moo koy yóbbu ndax man la man la amoon na. mooy ay leader charismatique Senghor. Ablaye Wade yu mel noonu mënatul am loolu moo tax. bi nga xamee ne ci biir PDS am na ñu bañ àndu nawle bi ñu doon prôné àndu mm-hmm. nawle. Mm-hmm. bu njëkk dañ toppoon Ablaye Wade Ablaye Wade nekkatul président Ablaye Wade mënatul yor dara Ablaye Wade mënatul def dara. Mm-hmm. mais dañ koy sagal bàyyi ko fi mu jiite ñu. waaye ñun ñi ànd dootuñ ànd topp kenn dañuy ànd àndu nawle. kon ça veut dire que yéen ñi doon ànd du ngeen séppi kenn jiital ko ngeen topp si ginnaawam. kay mooy àndu nawle. Hmm. mais day fekk ñu joxal ko ci démocratie. day fekk ñu dem. Hmm. jaay carte. de manière transparente renouveler instance parti bi. Mhm. taxawal structure parti bi nous ñu pour nga nekk secrétaire général démocratiquement. Mhm. ñëpp ànd ak yow jàppale la. loolu mooy démarche mais du ay décret yi ñuy jël. wala mhm. ay acte di nommer diw di yéegal ñii di wàcce ñi des di toroxal ñii di dàq pour que kenn fasse loolu dañ ko refuser manam dañ ko bañ. démocratie dàq na lolu d'accord man buma déggé ngay raisonné euh, man c'est l'impression que yéen. Karim ngeen bëggul mu jiite leen. déedéet. Hmm. ni ñu bëggee tagee Karim pour mu jiite ñu la ñu bañ. te bañu leen Karim jiite leen kon. non dégg wax naa la ko kenn ku nekk ci ñun de manière démocratique bu fekkee ne militants yi dañ ne diw moo war a jiite. Hmm. kooku moo war a jiite mais day nekk de manière démocratique mais du nekk de manière de transmission hmm. monarchique. maanaam. Euh, papa toog rek ne sama doom ji moo leen gën moom mooy jiite.

ndax mu ngi suux ndax PDS bi nga xam ne moo doon porte bu soppi bi. Mm-hmm. comme dafa nar a suux. Mm-hmm. suñu deful attention yëngal ko gësëm pour mu taxawaat yeewu. Mm-hmm. soppi bi day ànd ak moom suuxaale. loolu moo indi suqali soppi. est-ce que bu ngeen gën a suuxal soppi bi d'autant plus que tey gedd ngeen euh, fële génn ngeen daxuñ leen génn ngeen taxawal seen i mouvement. loolu xam nga lu lu lu koy réglé. Ah. bis bu ñu waxee Sénégal yi ni ñu bëgg a suqalee soppi. Hmm. léegi sax du yem ci soppi. bëggatuñu rek yëm ci suqali soppi dong. Hmm. ndax ko day melni Sénégal ñun PDS ak moñu ci ñor dédé hmm. Sénégal ci boppam lañ bëgg a suqali. jël pouvoir bi. waaw loolu mooy ambition bi nga xam ne mooy suñu première ambition mooy jël pouvoir bi exercer ko mais aussi dañu changer paradigme mooy lan. Hmm. ñun alliance la ñu wax. and alliance. and ça veut dire que ay teneur yu bëri lay doon. d' abord benn. loolu en interne. muy àndu nawle ci biir ñun suñu biir. Mhm. ba pare ñu ubbeeku ak ñeneen. Mhm. képp koo xam ne ñun li ñuy gis Sénégal ne lii lañ ko war a doxalee. Mhm. ak yow bokk nañ gis-gis ci naka la ñu war a doxalee Sénégal. mën nañu ànd ak yow pour suqali Sénégal. d' accord si euh, gouvernement boobu ñoo ngi ñuy wax gouvernement di union nationale. lu euh, xew Séné lu xew euh, Sénégal rek lu waral gouvernement d' union nationale. Mali. bu leen neexee ñu ne gouvernement d'union nationale mais Sénégal lu fi xew ba ñu gouvernement d'union nationale man moo ma jaaxal quoi concept yi yéen itam journaliste yi bu ñu leen waxee. non mais mais politique yi ñoo koy agité. déedéet jàppoon ne loolu war na mën a am. Sénégal hmm. ban politique nga nga dégg mu ne oui il est dañu war a taxawal gouvernement d'union nationale toujours da ngay lire ci article presse rek benn journaliste bind ne. oui le prochain gouvernement qui sera créé wala ñu ne sax bu sax ñu le président Macky Sall peut remanier son gouvernement ce qui est dans l'ordre normal des choses xam nga il y a des météo des fois <laughs> euh, météo kay météo Dans une manière, day le remanier en cours uh-huh. il hein, rek a des bloqué qui ñu yem ci yooyu ñu gouvernement d'union nationale après ñenn ñu a des ñu way gouvernement de rassemblement ñenn ñu ne gouvernement d'ouverture hmm. lu nekk ñu ngi koy mais idée vous noo ko d'abord Babacar mais un gouvernement a vocation à être remanié. gouvernement bu remanié. Madame, vous. Madame, liggéey ci président bi ñim tan pour ñu liggéey muy ministre yi. Mhm. su ba ab diir war na xol ndax baxna ou baxul baaxul su baaxul ñi nga xam ne seen liggéey sooxee na daf leen war changer seet ñoo xamné ne leen wala yaakaar na leen pour liggéey bi baax. lool moy remaniement. lool non ñuy rumandaat euh, ay acteurs euh, ténor de l'opposition war nañ bokk ci gouvernement bobu tamit no gisee. gouvernement kenn moo koy créer hmm. moo koy former fiñ ñu toll. Hmm. président de la république. mom rek mo la mëna wax né la man ma former sama gouvernement wala man ma nga a former sama gouvernement man maa ko bëggee nii moom rek moko mëna mun nag keneen ku la ko wax. Hmm. mu ngi spéculer. kii diw daf ci bëgg a bokk ak wax nañ diwa wax nañ ak Idriss Seck ak waa suqali yi ñu du gouvernement beeg euh, même am na ñoo xam ne ñu ngi joxoñ Massamba ma dem ba ce que yéen gis na ay parti hmm. ñuy déclaré ne ñun dàkk bokk ci gouvernement d'union national xanaa balaa nga naan non ñu wax la ne la kaay. est-ce que yéen bu ñu leen ne kaay taxaw ngeen ngir bokk. yan ci spéculation dama leen ne la. non dama lay laaj non je pose une question est-ce que ànd suxali Sopi, les ténors bu ñu leen wooyee ci gouvernement boobu di ngeen ci bokk. waaw wala déet vous man du ma répondre non. Ah. ba naa la tontu ba mu leer sa bopp te doo doo ni nga bëggee noonu ko <laughs> c'est-à-dire est-ce que suxali soppi les ñu leen wooyee ci gouvernement boobu ban gouvernement. gouvernement bi ñu war a taxawal bi ñuy naan. est-ce que dañuy taxawal gouvernement moo tax ma la spéculation la maintenant naa la tontu <laughs> c'est de la spéculation. dañ naan est-ce que gouvernement dina ñëw prochain gouvernement dina ñëw oui il y aura un forcément un prochain gouvernement. d'accord d'ici 2024. d'accord attends n'est-ce pas. oui suqali soppi wax naa la léegi. Hmm. ñun suñu mouvement on va aller dans un parti politique on va vers un parti politique. on va hmm. créer un parti politique. Hmm. c'est acté. bientôt vous verrez qu'il y aura un autre parti politique boo xam ne da nga ci gis Babacar Gueye ak ñoom Maître Sall ak c'est acquis. Non, non, parti boobu ay valeur lay demee. parti boobu suqali Sénégal moo ko ñor. gis nañ ne réew mi am na fu toll képp ku am les mêmes valeurs que ñun.

parce que dans la déggoon na sax ñu nan wax nan d'accord y avait amna déggoo nañu président juboo na ak Macky Sall et que for am prochainement dañ ci jaaree élargir gouvernement bi euh, dinañ euh, baal Karim Wad yu mel non yëpp dégg naa ko. Mhm. yëpp explication laa koy jàppee. Mhm. bala ma koy gis bala ma koy gëm ma tekki sama bët wala man analyse jox ma pour l'instant analyse joxuma gouvernement bu bess pour l'instant analyse joxuma té waxuñ ko suñ bir instance yi nekk actuellement suñ directoire mosuñu fa wax loolu. ñun ñi nga xam ne sax ñun ñett ñi gën a nekk les principaux responsables de ce mouvement. Mm. kenn ci ñun musul toog ak moroomam di ko wax affaire ay gouvernement. musu ma waaw Macky Sall musul leen woo. jamais musuma toog ak man ay Macky Sall di wax waxuma ak di wax affaire pour mu leer. musu leen woo yéen ñett ñooñu. déggu li ma la wax. danaa la mm. mm. ma toog ak gouvernement Macky Sall musuma wax ak mag téléphone Macky Sall bu mu nekkee président de la République ak léegi. ah bon waaw ah bu mu toogee ba tey musu leen. wax toogee ba léegi benn yoon la ma sa toog ak man. boobu président des région yi 2013. bu ñu def acte 3 de la décentralisation. ñu def délégation rencontré ko man maa parole région sénégalais parce que président de région là, woon. Mhm. boobu laa ko gëj a gis ñu toog di wax. sauf bi installer eh, le dialogue politique. Mhm. le grand dialogue le dialogue national. comme bokk naa ci dialogue national bi dem parler Palais aussi mu ngi doon wax maa ngi toog fi ma donc loolu mooy li nga xam ne mun naa ko wax lu ma gisee Macky Sall téléphone nag musul ma dégganteeg président Macky Sall bu mu nekkee président de la République ba téléphone waxuma la nga d'accord mu dialogue bi euh, Waron nañ ci wax hein, mais temps bi da temps bi dafa. jeex dafa wara am nak dialogue bi Covid bi mhm. Mhm. waru ko téy lutax tax. Mhm. nit ñi ngi def réunion même virtuelle. di respecter mesures barrières yi ci yenn euh, cérémonie yi wala yenn réunions yi. kon war nañu relancer les commissions comme commission moo nekkoon nekkatul le grand nombre mais les commissions. ñu reprendre les commissions très rapidement ñu vider la question du dialogue.

mu dara. donc c'est fort probable que ñu ñu repousser élection yi. bu fekkee ne dialogue bi continué wul élection yi d'accord Babacar Gaye acteur politique nga nga dëkk Kaffrine gis nañ ne sa dëkk bi taay euh, est frappé par les inondations ban réaction en quelques deux minutes ci situation bobu. loolu c'est récurrent maanaam loo xam day ñew année mu jot muy ñewat. Bama fa nekkee président de région donté du sama cër nak mhm. parce que mhm. ku nekk dafa war wax li nga xamné mom moy jobam. Mhm. man planification aménagement du territoire le euh, programme de développement économique et social environnemental La région bi la tabax def naa ñetti plan en yëpp def naa ko inondations fa bàyyi luy régler inondation yi bokk na ca. moo Il plan ya Kafrin. ko mais le conseil régional comme dañ ko tas le conseil départemental a hérité mhm. donc des plans que nous élaborons. élaboré woon mhm. naka les régler problème inondation yi ak naka la assainir donc Kafrin, les mu ci plan régional de développement intégré donté nak amna du masawu rek wa kafrino yi parce que de toutes les façons amul ben action bu mu mën a mëne action de solidarité vis-à-vis samay mbokk yi population yi nek fofu ci inondation yi mais du kafrin rek Sénégal yëpp mooy nekk inondé pourquoi aménagement du territoire nit ñi dañuy ñëw fàkk dëkk euh, amatul ben plan d'aménagement bu tax nit ñi dañuy fi fii ndoxu yoon la ken waru fi dëkk ba dëkk am ñu sëkk fi sëkk fi bu tawé rek ndox fa daan jaar bu bu ñu wàcc ci suuf rek il faut mu jaaraat fa. japon ne mairie bi moo liggéey lu mu waroon liggéey tamit. Euh, mairie bi am na ci responsabilité parce que de toutes les façons moom la war mais dañuy faral di wax naan assainir Kaffrine comme assainir euh, kaolax comme assainir Touba c' est des moyens yoo xam ne état rek moo ko am état nag waxoon na ci bi ñu defee seen conseil des ministres décentralisé sur la base du euh, sama plan boobu moo woon leen. Mhm. ne dinañ assainir Kaffrine def ay station de pompage waaye boobu ba léegi Faras. Macky Sall dal 2015 Kaffrine. Hmm. pour démanteler opposition moo ko gënoon ñor que pour défal wa Kaffrine wa Kaffrine sen bop ñi and ak mom dont les partis socialistes ñooy ŋàññi ne Kaffrine li président Macky Sall waxon en 2015 ci conseil des ministres délocalisé ba légui dara lañ ci est-ce que par nga pour donner maire candidat mairie bu Kaffrine. non amutuma un mandat électif bu may xëccoo Kaffrine da am lutax politique dur ay poste. politique du ay mm-hmm. mandat dong.

ndax si son parrain ndax papam dafa génn adina moy doomu sama mag bi génn adina man may parrain man may papam ñep xam nañ loolu baye Cheikh gay son mouvement BCG maté nako seuk pour prendre la relève donc est ce que na demal Kaffrine di xëccio ay poste maire ma am candidat sama dom, am candidat sama neveu am candidat ko xamne sama rak la ñu jàkkaarloo man lu ma di wax qu'est ce que je peux encore offrir au Kaffrinois lo xamne waruma len ko avant may ñëw encore di ko xëccio ñom aujourd'hui je vais construire une dimension nationale bu ci Kaffrine bokkee émission bi Émission c'est moi qui vous remercie. <laughs> internet de Dakar Actu Actu Débat jox Dik dig semaine bi di invité jërë Diouf.